asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu waa bi man la Aliou Ba mbokk ak Abdou Aziz Ba ñu koy wax Aziz Dabala ndey ak baay maa ngi wax ak yéen gannaaw bu ñu sante yàlla di gis Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi rafetlu seen teewaay fii teewaay bi lu ko waral rek xam ngeen ko balaa dara. da leen xamal ne ñun njabatu Abdou Aziz Dabala bokkam ndey ak nekk na ñoo xam ne ñun yar lañu fii la ñu juddoo si ginnaaraay bi màggee fi yeroo fi ñépp xam ñu kenn xamee ñu lu ñaaw kenn xamee ñu lu bon ngeen xamee ko noonu ñun nag. suñu justice dañ kaa dañ kaa dañ kaa dañ kaa wóolu dañ ka gëm ba tax na mbir bu ma amee ba léegi ñu ngi toog demuñu dikkuñu toog di déglu suñu justice di xaar mu wooñu wax ñu mbir fan la toll ndax lii amee police Sénégal gendarmerie sapeur si diir bu gaaw def liggéey bu mucc ayib bu am solo à l'espace d'une semaine deux semaines ñu boucler enquête bi téye ñu si war a téye jébbal leen procureur ñu toog di xaar procureur déglu leen def leen mandat de dépôt ñu toog di xaar ñu yaakaar ne ñu yaakaar ne mandat de dépôt bu pare. xëy na après dina leen atte sama yaay mi toog jur Abdou Aziz Dabala mu doon xaar yoon woo ko naka per nañ si per nañ liggéey lépp matériel Abdou Aziz Dabala kaay gël suk si appartement am na Aziz Dabala am na ay matériel si néegam xëy na am na xaalisam si néegam xëy na am na leneen si néegam ay mu si néegam ñun ñu ngi toog di xaar di xaar ñu suñu yoon suñu yoon woo ñu nañ pare nañu xam nañ ko def ako deful léegi nag kaay leen jël bagage Abdou Aziz Dabala ñu jël ko appartement bu mu nekk borom soxla na ko loolu lañ doon xaar loolu lañ doon xaar waaye ñu toog ñu toog bëgg démb ñu ne ñu kenn si ñoom génne nañ ko xamuñu lan nag lan moo tax ko te at amagul. adduna ñépp du ñu woo téléphone lan moo xew lan moo xew lan moo xew kii la moo tax ñu libéré ko néew ñu moo def néew moo deful waaye bëgg nañu xam lan moo tax ñu libeere ko kese ñu ngi doon tàddu xaar pour ñu atte leen xam ku def ak ku deful. à notre grande surprise même pas deux mois ñu libéré kenn su ñoom xamuñu moo def xamuñu moo deful ñu libéré pour lan suñu avocat nag. Maître si Ba monsieur avocat ñun famille bi jël ñun famille bi nekkul ñoo si initiative jël ko waaye ay am di jàmm Abdou Aziz yu baax ñu ko ay soppeem ñoo dégeloo nañu jël leen jël leen Maître Ba mu défendre leen ñu woo Maître si Ba mu nangu loolu prêt pour défendre ñu moom Maître Khoureyssi Ba lamminam sama nopp dem na pour jël dossier yi kenn nangu ko jox dossier bi. loolu kañ la. démbul ko woo téléphone may di xool si may dégg mu ne ma dem naa pour jël dossier bi mais nanguñu ma jël dossier bi. ginnaaw bi ñu libéré Nabou Leye ginnaaw waaye altine jàmm ak salaam suba danañ dem tribunal lu war dinañ ko def pour jot dossier bi. laaminam sama nopp. laminam sama nopp kon ngeen xamee ko noonu Maître Khoureyssi Ba suñu moo suñu avocat ñun ñoo ko jël dossier bi lañ koy jox lu ci war mu def ko ñun nag ñu ngi toog di xaar ñun ku ñu ñu xaar xeexuñu xulawuñu xeexlawuñu kenn xulawuñu kenn mu leer naññ suñu justice dañ kaa wóolu ñu ngi toog di xaar justice daf daf liggéeyam. appartement Aziz boobu ba tey amoo leen fa accès. benn accès. appartement Abdoul Aziz bu ñu bu ñu leen jëlee fee fa ba léegi amuñu fa accès amuñu fa accès te amuñu fa waruñu fa am accès sax ndax dafa am ñu fa dee tant que enquête bouclée wu ñu ñu jàpp ne dañuy def reconstitution des faits ba pare ñu soog ñoo gis seen seen appart seen seen ay matériel loolu la xaar moo tax ñun defuñu benn réclamation defuñu benn pression au niveau de la de la police la de la justice. jàpp ne rek ñoom ñu ngi seen liggéey suñu paree dinañu woo ndax am na sama numéro frère am nañ ko am na ay coordonnées loolu la ñu doon xaar. mais est-ce que tiitoo leen am na pas deux mois ñu ci tam. lool lool lool lool lool lool Abdou Aziz Dabala ak nuñ ko reyee xëy na yéen yéen yéen am ngeen xëy na autopsie bi rey bi ñaaw buñ ko rey moog moog wàllu gano tële si biir appartement. kenn xam 24 heures 48 heures ba seen yaram du waaj a décomposé wu ak ñu leen reyee ñu def ñu def police macha allah yal na yàlla fayal ñu leen enquête bu gaaw mu ci ayib am ñu ci téye ñu toog di xaar atte ñu libéré leen que lii boo ëllëmul seen xel ñu ëllëmul ëllëmul suñu xel ñun. lii bu seen xel ñu ëllëmul suñu xel ñun même pas même ñu libéré kenn waxuñu ne def na wala deful non ñaaw na trop te ñu ngi xaar ñu ngi xaar buñ koy libéré suñu avocat yëgul ñun yëguñu presse yi moo ñu woo ay presse moo ñu woo di laaj kat li ñu wax ne kat diw libéré nañ ko est ce yëg ngeen ko ñu ne ko yëguñu leen kon mu nekk loo xam ne lu vraiment ñun de en tout cas jaaxal nañ si lool lool lool lool lool ñu ngi woo nag ñu ngi woo ñu ngi woo suñu président excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye suñu président nga xam ne bi slogan bees jub jubanti jubal jubanti ñu ngi woo suñu premier ministre Ousmane Sonko mi nga xam ne mu ngi woote jub jubal jubanti ñu ngi woo suñu ministre de la justice Ousmane Diagne un homme intègre ñu ngi koy yëgal mbir mi ñu ngi ko siy woo ñu ngi koy woo ministre de l' intérieur Jean-Baptiste Tine ñu leen di woo ñu leen di woo si mbir mii nii ndax jugement amagul huit personnes ñu téye leen libéré kenn bàyyi kenn bàyyi ñeneen ñi xel ëllëg na waa adduna ñëpp ñu ngi si woo ñu leeral mbir mi nañ leen si ñu si woo ñu leeral mbir mi loolu la ñuy ñaan ñu leeral mbir mi lan moo tax ñu libéré kooku noonu lan moo tax ñu bàyyi kii ñu bàyyi ñii ñu ñu téye ñii loolu ñu bëgg a xam néew ñi moo def néew ñi defuñu ne leer mais am nañu droit en tant que mbokk Abdou Aziz en tan que mbokk Waly Gano ñu xam lan moo xew loolu ñu bëgg. d'accord ginnaaw boobu loolu amee tey ku yooyu xortondel am seen diggante ki nga xam ne waaw gis ngeen gis ngeen sama yaay mu ngi nii toog avant mbir mi di am opération la amoon ngi ni fekk ko si fekk ko si jamono yi paay amoon benn intervention bu ndaw ndax feebaram boobu noonu mag la te xam ngeen xel adduna xam na xel adduna. xam na ne Aziz Abdou Aziz nu mu meloon ak sama yaay adduna gis na ko si après bu ma bëggee ne vidéo yi ñu ñu wone Abdou Aziz daawul gëj si kër gi daawu fee gëj chaque jour daanaka mu ngi si kër gi di seet sama yaay man teg ma si kër gi waaye man yëg naa information yooyu mu nekkoon koo xam ne ku bëgg sama yaay. wallaay dëgg la. te amoon moom. amoon yërmande si moom kooku noonu léegi kooku noonu léegi ñu ñu ñu boom ko ak nuñ ko boomee ak nuñ ko boomee ñu boom ko noonu pare ñu am ñu si téye atteguñ leen waxagul leen si ñoom ñu ngi ñu ngi libéré kii di bàyyi ñii. loolu jaay doole wala lan la lan moo xew lan moo xew lu waral lii ak Sénégal gi wax changement moo fa am. changement la ñuy woote moo tax ñu woote Ousmane wootel Bassirou Diomaye Diakhar Faye changement la ñuy woote moo tax ñu wooteel Ousmane Sonko kon tey ñu leen di woo ñoom suñu autorité yi bees ñu leen di woo lii nii nii nii na leer suba dossier yi nañ ko suñu suñu avocat Bassirou euh, Khoureyssi Khoureyssi Ba nañ ko jox lii na leer lan moo tax ñu libéré ba bàyyi ñële na leer Ousmane Sonko ñu leen di woo président ñu ngi lay woo Ousmane Diagne ñu lay woo zapariste ñu leen di woo nañu leeral mbir mii dafa war leer ñu xam sénégalais yi xam ku def ak ku deful monde bi xam ku def ak deful loolu la ñuy xaar si yéen loolu la xaar si yéen salaamaaleykum. Aïda kon nga woote rek kàddu gu mujj rek kàddu gu mujj gi ngay wax rek jëmale ko ci justice ak état bi. dañuy def benn d'accord xam nga si ginnaaw yaa bëggoon débat waaw yan kàddu yu mujj ngay wax jëmale ko askan wi mais jëmale ci waaw ka sunu kàddu gu mujj mooy ñi ngi sant presse bi yëpp. di sant àdduna euh, bi yëpp di leen del jaaf jaajëfal ndax bi mbir mi amee kenn ku nekk bay nga ci sa waar li nga ci war a bay macha allah lu mat weer ak nangam kër gi day fees dell ak ay nit ndax baax baaxu Aziz dabalaa ndax li bagam wax ba rangoo ñoom tuuru imam ndax li ñuy wax rek booy juddoom da nga juddoomu ki waaye moom mi doon wax imam la mooy euh, Alioune Badara mi doon wax léegi imam la Ah, waaw léegi nag bi ñu jullee ci yàlla sëlmal ci yonent bi dañuy delluwaat rek di lancer waat message bu baax a baax président de la république ñi ngi jëm ci ay élections Ousmane Sonko macha allah ñi ngi leen di tàllal suñu loxo premier ministre ministre de la justice ministre de l'intérieur ñëpp àdduna bi tamit extérieur képp ku fa nekk ma waxaat ko mën ñoo jàppale mën ñoo dimbali ci mbir mi nga jàppale ñu ndax kat weddiwuñu suñu justice tuumaalu ñu suñu justice waaye kat xel-xel rek la te ñun tiit nañu tiit nañ de génn bi ñu génnee kii tiital nañu te gis nañ fi Sénégal toujours du jot nit de mille mu lu bloqué yëpp mu jeex waaw mu jeex macha allah maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp allahumma salli ala sayyidina muhammad jël paal du waaw d'accord waaw jërëjëf mbokk yi micro ana mo mu jël kàddu ci ka ka ka ci turu maire waa jërëjëf mbokk yi ñu ngi ziar ñëpp di sant yàlla liñ ci wax dañuy wax ñun en tant que liggéeykat dañuy ñëw en tant que presse mooy li ñuy wax daal mooy wóolu nañ justice bi wax nu diw moo def wax nu diw deful wool wóolu nañ suñ justice te ñu ngi ñaala mu def liggéeyam li des nag mooy ki def toujours samay direct loolu laa koy waxee waxuma sax ñu nu téye ñoo def waxuma ñeentee defu na mais ki def yàlla xam na lépp yàlla na ko yàlla leeral procureur bu ko la enquête bi ne kii moo def kaa di koy tekki loxo sénégalais yi li jaaxal ñëpp nag mooy nan la libération mën a amee te jugement amul li des nag mooy que ni dañuy bàyyi yoon def liggéeyam parce que damay wax en tant que nitu presse duñu jiitu procureur ci liggéeyam procureur bu dee enquête am na koy rendre compte qui que soit nanu dal bàyyi justice wóolu nañ justice ki def dinañ dem ba bokk na si enquête ni kii moo def li ci war ñoom ñu def ko asalaamaaleykum wa rahmatulah jërë ngeen jëf. gars yi xoolal ñi sol t-shirt dañuy ñëw. nañ ñëwee nii waaw ñu taxawee nii ah. nañ ñëw nii ci biir. non mën nañ jël ci kaw tali. day day fulu de. ah day fulu. daa tàng. tàng quoi. daa tàng. Thank you.